Ama amaa ba Baldé aj tànk ba mu tul mu tatafu tànk ba amaaru ñuux ko tànk ba rasu daw tey ca gañe ko Gris Bordeaux fóbbanti ko daw moom jëm moom ca barrière ba ca ca ba ca saaku ya amaa rasu ñu tàqali ko ñoom ñaar kon ñoom ñaar bëri nañu mission à accomplir macha allah mm. kenn amul lu mu leen wax macha allah def nañu def ñu ñàkk jom mm. bëri nañ ci yoon mm. teg nañ ko ci yoon ba làmb jeex ñu ñaan ak yàlla kenn ku ci ne ñaan la sa moom jàmm rek yàlla may leen ñu amaat yeneen combat yu gën a neex yooyu ñu gën di dem Ama Baldé Gris Bordeaux magam la amaa ba Baldé rakkam la kenn ku ci ne ñaanal sa bopp sa sa morom jàmm yàlla def jàmm ñëpp am jàmm yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm dañuy ñëwaat léegi sañ papa dina jëlaat micro bi léegi incha allah dina waxaat ci Gris Balla Gaye ak Tapha waaye dañuy jox micro bi le frère Fadam Tou maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la bégee Gris Bordeaux Ama Baldé seetaan nga ko yaa ngi woon ci plateau bi toog di ko reporté ak Aj Bécaye lan nga wax Modou Mbaye maa ngi lay nuyu bu baax. jaajëf di wax baatu asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nii ñu nekk ci plateau bi yëpp ku lim juum di nuyu sénégalais yëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan ci réew mi jàmm. sama première question day jëm ci Gris Bordeaux question bi ma ko njëkk a mooy combat bi dañoo gis ne phase la fa gëjoon a am dafa am muy tey jii li ko dalee ci xale ba ci mag ñoom ñëpp ñu booloo nekk benn. waaw préparé ndoo ay combat yu diire. ñu gis leen ñoom ñëpp ñuy préparé ku mel ni Serigne Ndiaye numéro 2 Gris 2 Lac Rose. Mm-hmm. tey jii face benn boobu ñu gis ko ci am na ci seen biir. Mm-hmm. lan la répété wu ci sa diggante ak Ama Baldé. Gris. waaw faram tout loolu moom loolu bokk na ci li ma gën a galvaniser ah. parce que combat à tout euh, boo yi ngay nekkal dañ lay euh, dañu dañu am comportement yoo xam bu ñu ko amee dañu am source de motivation. Ah. buñ lay buñ lay pikiir. Hmm. te booy yi ma nekkal ku mel ni euh, Serigne Ndiaye. wala hmm. may wax mbëri sax damay wax euh, les dirigeants. waaw may wax ni Abbas Ndoye. Hmm. sama président maanaam tey dafa am comportement yoo xam ne bu ko sa kilifa di def sa diggante sa diggante ak yow. boo toogee sax soo toogee sax da toog jour yoo xam ne jour jour jour jour récupération la sax nga jékki-jékki rek na bëxër ñëpp. parce que boo ko xalaatee ndax li muy daj ku mel ni Abbas aw ma fayam ci bés bii ak euh, encadrement bi yëpp Amadou Kati Diop euh, Ibra Mbaye ménager yi même sama directeur technique bi toog nii sax ci la bokk <laughs> xam nga mais mbir yi ci boppam dañu am solidarité ci combat bi di ma pousser di ma booster ba nga xam ne dañ ma bés bii dama leen doon sóoraale lool ci bés bii ku mel ni Serigne Ndiaye di suma rak bés bi daf ma ci daf ma ci wan cofeel wan ma ci wan ma ci bés bi maa la ko gën a bëgg su rak Gris 2 suma rak kooku duma ko duma ko sant dama koy ñaanal yàlla booy général Lagrose xam nga booy yu ndaw yi xam nga booy yi nga xam ne chaque jour dañuy muñee entraînement dañuy dañuy dañuy rey seen bopp booy yu ndaw yi nga xam ne poids léger yi dama sonal dama daj ay coono. ñooñu tey ñoo ma galvaniser ci bés bi ba nga xam ne tey euh, nii rek la bés bi woon bés bi nii rek la mënoon demee. dama gis sànq nga souligner benn benn arrêt doog Modou Mbaye mooy sama combat ball Balla Gaye numéro su ma amoon comme li ma am sama diggante ak Ama Baldé mooy sama combat ak Balla Gaye 2 noonu kon tey jii dañoo bëggoon wax ne kon suma te li ma jàpp mooy mbooloo bi nga am ci combat bi amoo kon sa diggante ak Balla Gaye numéro 2 ci Kirfaas. non non parce que sama komba ak Balla dama absenté dama dama am absence bu bari 4 ans. dafa bari quoi dama toog lu yàgg parce que tey ci côté écrit bi tamit gis nañ ne bëri bëri. boobu dafa dafa woon. parce que tey euh, am na benn moment boo xam ne gars yi dañu dañu dañu dañu ñii leen jaar fii ñii jaar nii ñii jaar ku ne soo amee combat danga koy dem préparer amul woon cohésion par rapport ak année bii passé année bii passé boo xoolee résultat yi ñu am cohésion ak entente ak booloo ak ku fu waay am combat ñu fekk la fa loolu moo indi résultat yi. Hmm. parce année yooyu loolu moo dem taxoon parce que tamit combat man am naa combat Balla boo xam ne sama biir kër ko préparé sama biir kër laa doon contacté parce que dafa amoon dañu dañu woon mais combat bi dafa tombeek booy yëpp am combat ñu jàpp ci surtout nag préparation bi may waaj waajee ko Medina xam nga di nuyul waa waa kër waa kër maam Youssou Diop ay li ak avec toute sa famille. Hmm. parce que tey combat yu bari maa ngi ko waajee Mbaaw te nag Mbaaw fa laa fa laa dëkk. fa la yeewoo maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla. Mm-hmm. mais nag Medina fa la fa la fa la fa la fa la fa la cosaan bi ne. Mm-hmm. moo tax combat bi dañ ci gis seen bopp trop. galvaniser wu jàppale ma xam nga ñëpp jóg ñu doon nelaw yëpp yeewu. moo taxoon mm-hmm. làmb ji dafa amoon lu mu doon symboliser ci man trop. merci. macha allah damay ñëw ci Ama Baldé Modou Mbaye. waaw Fadam. dama gis ne Ama Baldé euh, Gris Bordeaux da ko préparé ci déplacement latéral gauche latéral droite. waaw mais Ama Baldé bi mu séeree Gris Bordeaux ci digg bi. touché na Gris Bordeaux mais Ama Baldé àgg na fi Gris Bordeaux foo xam ne nii mbër ma mos a mbër mu fu mos a àgg làmb ji jeex na. Hmm. mooy Ama Baldé ku mos tënk ci làmb làmb ji jeex na da lay jéggi. waaw lan moo tax Ama Baldé combat bi nga touché Gris Bordeaux jëli ji ko àgg ci ngemb ko taf ko te làmb ji jeexul benn lan moo waral loolu combat bi finition bi ñëwul 100 pour cent. non lu loolu nee naa la combat bi dama amoon problème poids nii. Ah, da nga amoon problème. dama amoon problème boobu mu desee trois jours. ndax nañ doon contact. soxob ah, kii moom ma samp sama ma samp ah, ma kii samp sama loxo moo tax ma bëri bëri tamit néewul kàttan comprendre la kon lu ma la rek combat bi dafa kon lu ma dafa favoriser bëri bu baax baax lépp lu mu mun a def rek bu xeeb bi xam na ne Ama day ñëw sama tànk yi comprendre mu préparé combat comprendre ak tey affaire bu ñuul boo mu kii woon xam nga day gën a su ma kii day gën sama loxo day day kii <laughs> sama loxo day day kii. Ah, dafa am lu mu laal day tax waaw non non du laalo de nekkul laalo. Ah. dara xam nga yëngu tànk yooyu rek nekkul laal nekkul dara. loolu dong la woon. giri mhm. loolu la woon. li nga digoon sa loxo yi la laaj ko. non yow yaa ko diwoo. <laughs> mais laal man mu. ñu ñaar après <laughs> ñu la. <laughs> huile moom kenn du ko accepté. mais huile loolu CNG du ko. non non non moo ne moo la giri moo ne ko taxal. no affaire bi affaire bi mënoo comprendre lan la tey ñi ñooy naan la si kiiw jën yooyu lu nekk lay dégg waaye affaire boo ko diwoo normalement boo ko diwoo arbitre yi mënu ñoo def erreur parce que ba ma ko diwoo ba ma ko xoolee eh, gis dara parce que day waaw xool naa ko parce que ba mu comprendre mooy loolu xam naa ne nante la affaire yaram bu <laughs> bu ko diwee arbitre mënuñoo comprendre yëfu lamb la xam nga euh, Modou Mbaye foofu damay ñëw ci sama deuxième question dama gis Ama Baldé bi bi bi amee première baat bi ñu ko bu ñu ko njëkk wax mooy man Ama Baldé damay nekk roi des arènes ba léegi slogan boobu Ama Baldé mu ngi ko téye loolu tey jii pour Ama Baldé nekkat roi des arènes dama koy laaj ci niveau professionnel la ko teg wala ci niveau entraînement wala ban Ama Baldé moom lay gëmloo Pikine ne moo war a nekk roi des arènes Ama Baldé boobu la Sénégal yi di xaar. ba Fadam ama tey si dara. amaguma si dara a jékki-jékki rek da bàyyi làmb beneen siir ak mbër ñoo ànd yaa ma dégg dama dama dama dama dama bëree roi des am fa tolof tolof tey roi des arènes ñëw ma bëreeg moom état de forme bu ma war a indi normal ma ñëw ah, daam si roi des arènes dama am ay blessure comprendre dem bëri ji ak kon combat yi tout le temps dem bëri parce que combat boo téye mois. six ans damay dem bëre ji comprendre xëy na tamit nit ñi dañ lay bëgg dañ lay bëgg di wax di wax xam nga sénégalais sénégalais xamuñu tey xamuñu tey mbër lan lay daj ci combat wala lan lay daj lan la war a préparer pour que tey da gis nit yu bëri mel ni man làmb dama bëgg a bàyyeeku nii nii nii nii si làmb te dama am blessure boo xam ne bu mag a mag bu méttee métti boo xam ne kon lu ma lay wax rek tout le temps du ma fàtte di si di ah, di sant Asin Ndiaye bu baax a baax parce que moom xam na comprendre mbër ak blessure ñoo yem sportif ak blessure ñoo ànd comprendre moo tax ma ne sama bee ma ne su ma demee ba bu su ma wéree ba war a wér amul benn mbër boo xam damay tiit parce que ba bëri taxawee ba bëri jàng jàng bëri jotee laa dem jàng ji bëri man nit ñi mun naa leen mun nañ mun nañ toog nii nii parce que damay yàqamti dem fugu xale waaye dama leen àdduna laa amul mbër boo xam ne dàq na ma bëri si ñaari fànn yëpp si daw song na daw song ma si lépp amul mbër bu ma dàq bëri si àdduna tey nag ànd yooyu mooy loolu waaye tey ñoo faju nañ ba wér lu suñu kanam kon lu ma la wax rek dañoo tëj page tourner benn page page bu ñuy tourner tëjaat benn page amul kenn koo xam ne ñoo lay calculer. foofu nag laay ñëw mooy sa Modou Mbaye sama dernière question. Hmm. victoire de Ama Baldé ci kii Gris la ci Ama Baldé jëm ak làmb. déggoo moo tax ma ne amu ko may ah, amu nii moo ñu mel ni sama premier combat ba may doog a dugg amul benn mbër boo xam ne danga koy taxaw naan kii laay bëre wala kii ku la làmb boole da ngay bëre parce yow yaa bëgg yow yaa bëgg a wane sa bopp. comprendre keroog bi nga bëree ba pare. dangaa mm-hmm. bëree ba pare ñuy wax nga ni ñuy wax nga ni franc bii ñuy wax sax nañ ma ko jox noo déggu ma ne dama tëj tëj benn page tourné beneen page mm-hmm. man bàyyi moo fi franc bàyyi moo fi Ada Fass Serigne Ndiaye mm. ak képp ku mun munti doon parce que xale laa boo xam ne xale laa dafa yàq plateau laa dafa amoon loo xam ne dama fa visé woon muy roi des arènes mënatumaa yéeg tey samay rak samay rak samay mag samay morom rek laa mun a bëreel ah. te tamit ñooñu ñëpp champion ku su mel ni Serigne ku su mel ni Franc ku su mel ni Ada Fass mhm. ku su mel ni keneen keneen koo xam ne làmb boole na ma loo xam ne war na ñoo mën a bë pare naa pour nii nii su may jël jël avance ñu nga baal ma benn question rek boo xam ndax maag buur daa am lu ñu ñu xamee diggante Ama Baldé ak Tapha Tine moom dafa xaw a triangle ndax mënuñ koo mosaat ndax nekkul seen xel ñoom ñaar Ama mi sa xel non mooy sama xel mooy <laughs> ah. sama xel saa la mbër la comprendre comprendre mer la fanaanoo de. le retour de Tafatine. Ah, il a mer de. <laughs> non sama gën a xalaat. le retour de Tafatine ama. yaa dugg si Tafa. taal ba Serigne Touba lu mer ñoo bokk Serigne Touba moom mu ngi naxaatee mu ngi naxaatee. mais Modou macha allah waaw c'est c'est normal ah, ah, ah. ci biir carrière ay mbër dañuy daje. bëri mm-hmm. autant de fois. Mm-hmm. ñi bëri na ñaari yoon seen biir ñi bëri ñetti yoon seen biir. waaw.